dañu am bëgg-bëgg dañu am gis-gis dañu wax ni xulubul aarifina laha uyunun tara ma la yarahu nitu yàlla yi xol lañuy gise lañuy gis bët du ko gis ñun nitu ordinaire yi ñooy gis li ñuy jàkkaar lool waaye yàlla may na nitu yàlla lu ñu naan kashf ak gis-gis bu sori xam ni ñëwagul fa tabarakallahu yàlla boole woon ci sëriñ Babacar Si radiyallahu anhu mu dëkk ci këram gi fii nekk pàkk benn naar moom ko mu bëgg ko yónni ci sëriñ Abdou Aziz si mu dem waxaale moom naar ba wax lu cher mu ñëw wax ko sëriñ Babacar si mu nar a fay sëñ Abdou ne ko déedéet loolu dafa cher moom ci xelam ak ci bëgg-bëggam mu ni ko lu cher lu baax amul njëg loo yor njëg rek cheratul mook moom ba yàlla dogal ci gàttal mu jënd pàkk bi. mag mi wax na ne jigéen ñi bu ñu footaan daanañ fi ñëw di weer seeni poot mu wax soxna si ne ko bu ma sañoon de foofu duñ ko def pootu weerukaayu poot ñu defaat ko. mu ne soxna si waxoon naa leen ne fii buñ ko def palaasu wéerukaayu pool ndax li may ñaan bu ma ko yàlla may dama bëgg a dëkk ak yéen tey ba ëllëg bërëb bii ma dénkaane woon tey la dénkaane bi gën a feddaliku dama bëgg ñu bañ fay defati dara bu fi kenn fóotati bu fi kenn tur mbalit boobu bi sax la jënd ciment móollu def ko muy làkk mu muur ko ba mu muur mu utal bunt tëj ko yàlla dogal euh, mook njaboot gi ci gàttal ba mu dem ba feebar yàlla dogal mu génn àdduna bi mu génnee àdduna njaboot gi di xalaat fu ñu ko war a denc ah, ku ne indi sa gis-gis waaye soxnaam soxna asukan radiyallahu anha comme que moom faqiih la woon ku jàngoon diine la bi njaboot gi xawee jaaxle mu ni leen waaw du dañu wax ni ci wàllu sharia nit kuy dund yaa moom yaa moom sa alal waaye boo génnee àdduna sa sulusub maal yaa ko moom maanaam sa ceer nit bu amoon quinze mille francs di dund bu génnee àdduna ñay donn ñoo ko moom waaye cinq mille francs ba moo ko moom ndax moom lañ koy préparel sangu ko ci sangu ko ci waajal ko ci mu ni leen soxna sëñ Babacar Si duma moom fii ñu ne ko waaw mu ni waa kon kay def leen ko fi ndax moom moom alal xel yi soog a dellusi bi ñu dëppoo ci loolu sëriñ Cheikh sëriñ Mansour sëriñ Abdou Aziz sëriñ Manirou Sarr mag ñi El Hadj Moussa mag ñëpp ni dañ koy def ci digg bërëb bi waaye El Hadj kan Kane ngi bokk ak mi nga xam ne mooy nijaayu ñoom sëriñ Abdou Aziz Sy te bokk ak soxna Asou Kane ndey ak baay nit yàlla la woon bu am gis-gis. ñëw ci sëñ Abdou ni ko euh, bàmmeel bi nañ ko def ci cat la sëñ Abdou ni ko waa lu tax bërëb bi yaatu na nga bàyyi ci digg bi ni nañ ko def ci cat la mu ne ko waaw euh, sa jàkkay maam ji ëmb na te bis dina am doom. booba jàkk ji nekk gu fi. déedéet booba pàkk la rek moom laa la wax mu ne ko jàkkay Seydi Hadj Malick ji ëmb na te dina wasin waaye booba xamuñu li ñuy wax. waaye comme que mag la te ñoom dañoo dund ci kilifteef ñu déggal ko dem def ko ca koñ ba ca koñ ba moo waral suñu ko si nekk ci koñ bi. voilà donc histoire bi euh, lañ leen nettali euh, ci euh, jumaa